waaw waaw bisimilah ginnaaw moom sant yàlla julli si yonante bi maa ngi ñu fi teew ñëpp sant yàlla bu baax a baax di nuyu sama fam bi ma fekk di sant yàlla bu baax a baax di julli si yonante bi sant Serigne Saliou bu baax a baax di sant Serigne Saliou di sant yàlla bu baax baax di fi nuyu ñu fi teew ñëpp mm-hmm. vraiment maa ngi si yéen ñëpp. Mm-hmm. combat ay xale lañ ay xale yu ndaw lañ xam nga moom moom macha allah. da leen ñaan la yàlla suñu borom lafal cat comprendre na comprendre na di ñaan naan armée euh, champion la am comprendre na champion la mbay guy loo ko mën a respecté dana respecté ko comprendre mbay guy tamit aussi di ñaan yàlla yàlla si jàmm yàlla xam ne armée moom suñu xarit la suñu mbokk la suñu lépp la dañ ñaan yàlla ko suñu borom defal jàmm rek yàlla suñu borom lafal ko cat waaw non ah, sama waay la moom loolu moom yàgg na trop xam nga maalo moo ko yar yar moom comprendre si benn barak ko ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm rek. waaw. loolu la nga siy tontu benn bi damaa def ak yow émission yàgg na. nga ne ah. loolu xam nga loolu na sax nekkul waa Fass ñoom ñu ne dëkkal sax dañ la koy wax. moom naa loolu nekkul waa Fass rek xam nga bu ne waa Fass day ko ñu ne dëkkal sax comprendre ñu ne dëkkal di nekk ñoom chaque jour sax jaayoo jàpp na ay tappale la xam nga ni koo xam bu feebaree seet si woo ko xooloo suñu mu nekk kon amoo amoo sax du di wax lu ëpp comprendre loolu moom dañ koy waaye ku xam ne Ama Baldé ak Gris Bordeaux su ne Ama Baldé dafa dada gaañu dafa gaañu mën a Tapha laa gënoon am blessure bu gën a méttee métti waaye man blessure bu ma blessé mënu si sport mënu ma def dara su ma si mënoon sport damay dem bëri di jàll leneen toog bu ma toog amalu ma benn sens toog bu ma soog di dàq combat bi dama man sama bopp laay tardé tardé lu ma promoteur sama bopp laay tardé loolu la donc kon waa ko sax franchement bu dul wax am na am yu bëri yoo xam ne duma ko déglu franchement. beneen question bu am na solo trop nee dafa defoon ak yow mbër bu ma daan. waaw loolu maa ko waxoon. loo waxoon maa ko ne sax amaguñ daan. xam nga boo ne ngeen bëgguma mbër bu ma daan ay ay ah, si aar noonu la ñu nekk sportif lañu. ëllëg dañuy jëm mag. Mhm. ay xale dañuy déclencher comprendre waaye dama ne ngeen bëgg gisaguma mbër bu may daan Fass waaw waxuma du ma ngeen boobu ah. daan gisaguma laa ko. ba léegi gisaguma. non gisaguma sama passion la loolu yàgg na Gris Bordeaux bokk na sama keneen bu yàgg yàgg fii xale boo xam ne bu jeune bu juddoo Pikine am âge bi ñu am rêve na bëri Gris Bordeaux si ñëpp xale yëpp parce que moom moo fi nekkoon comprendre loolu loolu la yàlla def. kon Gris ci Gris ci boobu. waaw Gris Bordeaux boobu cité naa si keneen ak keneen des na. waaw troisième question du dara sama papa moom moom moo nekkoon seen patron ñoom ñëpp. moo jàngal mbéy kay sama moo nekkoon patron yi taxul bëri. nekk jox ma jox ma xamal tamit waaw xam maay caat tamit hmm, loolu. Ah, ah, macha allah. maa lay fay sama nday ah bëri bàyyi nag loolu la. Ama eh, dañoo gis ne sa combat bi dañoo jël lendemain mu ne Ama Baldé combat ak Gris Bordeaux ba gën a nekk ci combat wala moom mu ne mu ne combat bi boo ko il faut que nga réussir ko mën a bëre ki nga xam te ne mooy Modou Lô mm-hmm. ci côté préparation bi léegi nañ ko mu ne. côté volume mais ci côté doole sa combat dañ koy pare rek kon Gris Bordeaux ku Gris Bordeaux mun naa la kon combat yëpp la parce que Gris Bordeaux champion bu mag a mag la amul nu ma koy paree nu may paree Gris Bordeaux laay dem préparer yeneen combat yi parce que Gris Bordeaux champion bu mag a mag la def fi lu nekk comprendre nekkul sax ay kon lu nit ñi di wax man moom loolu taluma ko mbër mbër la dama koy respecté rek nekk si li nga war a nekk yàlla bu am ndam may ñu ndam ñu dem jàll si leneen hmm, loolu donk la waaw. beneen bi mooy euh, bëgg démb gis nañ sa gars yi am na ni dañ leen recevoir woon la relation humaine du dara man Ama Baldé man mbër laa comprendre tey Ama fii la far ak fii la far loolu intéressé wul kenn. waaye tey am na loo xam man bu ma fekkoon damay dem toog en tan que sénégalais comprendre toog déglu président di wax comprendre déglu président wax bu fekkee ñor na ma dinaa xam ne ñor na ma bu fekkee ñor ma du ma ñor ma comprendre samay mbokku mbër lañ samay nawla lañ comprendre fu ñu toog am naa droit dem toog fa waaye mun nañ mun nañ nañ bokk position mun nañ bokk gëm-gëm mun nañoo bokk dara waaye Amadou Wa dafa am droit dem fekk bu su mbokku mbërëm fekkuma fa jour boobu su ma fekkoon damay dem kon sénégalais yëpp toog déglu am nag fu mu far ak fu mu yàlla suñu borom moo ko xam. gis nga sa mbokku mbir yi xam mais Ama lan la si gën a ni gars yi fa nekk la ñu fi toog ñëpp kenn xamul lu mbëri wax dañuy dégg lii ak wax kon man mënu ma see wax loo xam ne mooy loolu comprendre fa xaw ma lu ñu wax waaye te yaakaar naa je pense que intérêt làmb moo leen fa yóbbu woon ñoom ñëpp comprendre loolu la rek di leen ñaan tam ñoom ñëpp samay mbokk mbëri yàlla na leen suñu borom defal jàmm. man li ma la bëgg a mooy combat bi nga blessé ñoo nga blessé nag faju nga ba wér mais man comme damay gëstu tamit des fois ci ay xibaar dama amee wane que ne Ama bëri na neuf bi naru hmm. est-ce que Ama nar na tontu. balaa nga ciy wax. non bàyyi bu posé question ba pare. voilà waaw est-ce que Ama loolu may dégg ci biti naan Ama bëri na bëgg ko naru ko est-ce que Ama loolu mën na ko dëggal ou pas wala day bëri la nëb. ah mais bëri na nëb moom fi tontu non non xaaral yow noot man maa koy tontu. Ah, loolu tontu tontu non man maa tontu. man mi tegu combat bi am naa droit wax. bien Babacar gis nga question boobu nga posé Ama Baldé mi ngi nii moom yóbbu ma yab boo xamante ni ah tey mu mu blessé dugal certificat de guérison tey bu wéruloon du dugal certificat de guérison tey bu wéruloon du dugal certificat de guérison tey certificat de guérison ku ko dégg mooy yàlla defal na la jàmm kon tey yàlla jàmm boobu mu ko defal li ñu war def mooy ñu ñaanal ko jàmm jooju yàlla yokk ko ñu àgg ci le neuf ak jàmm ak salaam ñu dem nekk ci beneen loolu laa amoon lu ma ci wax loolu. léegi kii ah, nekkoo ci logique bu bëree le 9 juillet. waaw kon lu may wax rek xam Ibrahima bu fekkee yàlla sécurité euh, ànd na ñu sekk trang sekk lépp trang trang la comprendre man Ibrahima ñàkkuma fayda ba mu may sacrifier sama carrière. parce que lu may lu may jox Ibrahima nekkul moo koy jox comprendre kon Ibrahima bëgg lu ko neex ak lu ko naqar du ma sacrifice sama carrière loolu mënul nekk comprendre damaa wér péng ay médecins yor ma suivre ma war na dugal bëri ma dem dugal bëri nekkul kenn laa si rus nekkul kenn sama si kenn comprendre loolu wax dëgg yàlla moom xam nga laam moom ak rumeur rek mooy daw waaye su ma pare woon di kii parce que ba ma gisee ba média bu ma gis ku ma gis si weeru koor ma gis fekk dama sant yàlla wér di ñaan yàlla yàlla na ko suñu borom yokku xam nga loolu la. dafa yàqu loolu baat boobu te day dem baatu internet la combat bi buñ ko fi ñu ko waroon a jàpp promoteur bii moo waroon a dem màkk moo yàq date bi biñ ko yàqee yàlla dogal ñun ñëpp ay jullit lañ te farata la ñu d'accord ci ak moom mii amul lenn luñ ko ci wax ndax ku ci nekk da koy ñaan yàlla bi loolu jàllee mu ni dina ko tëgg diggante bi ñu ko jàppee waat combat bi. mën naa ni xaw naa manqué organisation ci diggante dix jours régularisé wuñ combat bi biñ naan ma nii man pare woon pour bëre noonu mais nit ku nekk da nga am staff man sama entraînement laa am blessure bu ndaw du lu ma tere entraîné ndax amna na kur di sax ci entraîné mu ne armé maa ko di sax mu entraîné man ni ma blessé maa ngi continuer di entraîner maa ngi dem goudé bëccëg di ñëw kii may andal xam na loolu général ben bobu régularisé guñ mais mënuma am certificat d'aptitude pour pour pour pour pour pour pour beure nan ngay régulariser lolo waral bis bu loolu yàqu ci diggante 10 jours la bobu régulariser guñ combat lolo kasse bu nekkee blessure bobu lañ doon wax alhamdulilahi rabbil alamin lolo wér bu yag leneen yi ci desaat yëpp ay mbiru yalla la la ko jappé jàpp nañ ko fi mu yakku ñu jabar ko mu yakku mais du ci sama coobare man blessure bobu 10 jours yoy la pour mu lèr